dañu koy doreek la xew ca diwaanu Ngadiaga ginnaaw takk takku teen bi nga xam ne moom moo di moo fa doon takk ni ki weeru décembre ba léegi te waraloon benn ingénieur dal di ci ñàkk bakkanam am na keneen koo xam ne ñàkkaar na ci bakkanam ni ki démb mu di benn gendarme bu ñu fa envoyé woon mu nekk ci wàllu mission de sécurisation ginnaaw takk takk loolu moom itam dal di nay noyé ca bassin de rétention ba nekkee ca diwaan boobu lee li ko waral nag dal di nañu koy fësal ginnaaw bu mu doon gisee ne nag dal dinay lap ca moomu leen ndox génne nañu ab néewam muy wuyoo ci turu Sakoura Gueye ba dal ko yóbbu ca hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh ba nekkee ca Tiwaawoon ñu wax ci mbirum Boubacar Seye mi nga xam ne daal dinañu koy teg loxo ginnaaw bu ñu jàppee ne dafa fësal ay yoo xam ne wérul ba tax ñu dal di koy teg loxo ni ki la janoo ak doyen des juges koy nag euh, tëcc mu mel ni jamono ji daal dinañu information judiciaire li waral ne li wane ne moom Boubacar Seye moomu mën naa toog ay fan ci kaso gi laata ñuy càmbar ay mbiram ab avocat am nag mi ngi wuyoo ci turu maître Moussa Sarr di sàkku ñu daal di koy jox li nga xam ne moo di liberté provisoire ci nu mu gën a gaawee ndax client bi di Boubacar Seye dafa am ay jafe ci wàllum wér yaram bu ñu sukkandikoo eh, ci information yi nga xam ne joxe na ko dafa am li nga xam ne moom moo di bopp buy métti ak ay palpitation te itam mi ngi sàkku ñu daal di koy génnee ci nu mu gën a gaawee li ko mooy yooyu le mm, problèmes mën naa gën a yokku te itam bu boobaa mën naa jur jote ci réew mi ñu wax ci mbirum 94 milliards yi waral waraloon coowal Mamour Diallo ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ginnaaw boobu plainte te mu juróon coow ba ki nga xam ne moom moo doon maître El moo doon plaider jëmale mu mel ni dañu ne ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko yoonam newul ci milliards yooyu nga xam ne moom la doon jéññe Mamour Diallo te ñu ko doon càmbar lu ëpp at boobaak léegi loolu coow te nit ñi doon ko xaar mujjul am benn suite li waral jamono ji moom Ousmane Sonko daal dinay mer ba futt ndax dafa jàpp ne yëf ya mbiru euh, kumba am ndey la ak kumba amul ndey ñu des ci mbiru Mamour Diallo ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko maître El Hadj Diouf daal dinay addu yëkkati wax ay kàddu wax ci lu ni mel moom mi nga xam ne euh, bi coow li melee ni tuleeg màllee moo doon plaidel ki nga xam ne moom moo di Mamour Diallo ba doon ci yéeg ak wàcc dal dinay addu la mu jot a wax moom moo di euh, dañuy day exiger li nga xam ne moom moo di levée de l'immunité parlementaire jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ginnaaw tuuma yi nga xam ne moom la doon gàll ci ndodd Mamour Diallo mi nga xam ne ab client nam la te li mu doon wax dara amu ci ba waral doyen des juges di classé boobu les dossiers maître El mi ngi sàkku ñu daal di def li nga xam ne moom moo di exiger l'immunité parlementaire jëmale ko ci Ousmane Sonko. ñu lu ñeel askan wi ak lu ñuy nemmeeku ci oto yi fan yi ñu nekk ci réewum Sénégal ginnaaw bu ñu gisee woon benn taximan bu faatu ci Parcelles Assainies unité 6 dal nañuy nemmeekuwaat beneen accident bu am euh, ca diwaanu rond-point des cités des eaux ba nekkee ca Ndakaaru ligne 67 bi di minibus bi la ñu dal di gis nag benn waay bu ci piqué crise ba mujjee cee ñàkk bakkanam ci saa si waa jooju mu ngi doon wuyoo ci turu THP Mané am ñeent fukki at ak juróom-ñeent nekk ab imprimerie dëkkee ca diwaanu Wakam bi mbir moomu la amee nag dal dinañuy euh, palper ay poosam fekk ci ñeenti téeméer ak fanweeri dërëm téléphone portable buy firnde aw turam waaye itam xam ay mbokkam li waral ñu dal di leen di woo ci saa si dal di yóbbu néew ba ca hôpital Aristide Le Dantec rek ngir amal li nga xam ne moom moo di autopsie ñu wax ci diggante maître Moussa Diop mi nekkoon ci bopp Dakar dem di kàkk ko wutu di Omar Boun Khattab Silla coow li doxoon seen diggante eh, ginnaaw bu Omar Boun Khattab Silla tuumaale woon maître Moussa Diop ne dafa créé ay employés tolloog 200 employés fictifs yoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci biir Dakar dem dikk te nekkul lu weer ba waral maître Moussa daal di génn démentir lu ni mel ba ñu doon dànkaafu Omar Boun Khattab ngir mu fay employé yooyu seen xaalis maître Moussa Diop daal dinay xëy fësal yooyu les

teg fa loxo lu tolloog téeméer ak ñeent fukki nit yoo xam ne ñaar fukki ya mujjee nañu leen defeere ci ay mbir yu bokkul bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xam ne commissaire de police principal di Aïssatou Ndiaye moo ñu ko xamal euh, benn safaru moto boo xam ne dal dinañu koy teg loxo moom itam ba defeere ko ginnaaw bu mu jaaree ci kaw benn agent police la ñu koy toppee mu de coups et blessures volontaires dal di dinañuy teg loxo itam lu tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom oto ak juróom fukk ak ñetti yoo xam ne euh, jamonoy couvre-feu bi ba waral ñaar fukk ci ñoom daal dinañu leen di defeere la ca des libéré leen ñu àddu wax ci leneen lu ñeel askan wi ak li nga xam ne moom la njiitum réewum Sénégal def jëmale ko ci magistrat yi ginnaaw bu ñu jàppee woon ne dañoo am ay jafe-jafe ci wàllum collectif dal dinañu yokkaat ci effectif ba juróom-ñaari magistrat yoo xam ne mi ngi ko décrété le 8 janvier bi ñu passé bu ñu sukkandikoo ci le témoin daal dinañuy fësal ci bopp xibaar yi juróom-ñaari nit yooyu nga xam ne ñoom la ñu dolli ci magistrat yi mu di Mamadou Koumé Seydina Issa Issa Sow ak ki nga xam ne moom moo di monsieur Ibrahima Sakho madame Oulimata Diop Khady Ndaw ak ki nga xam ne moom moo di madame Takia Safiatou Fall ak Mamadou jiite mu mel ni fas yéene nañoo tàmbali seen liggéey fekki ñu fekki magistrat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci réewum Sénégal ñoom juróom-ñaar yooyu ngir ñu wëyal amal seen liggéey ci réewum Sénégal. ñu wax ci leneen téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn migrants sénégalais yi ñoom ñoo def grève la faim li ko waral moo di xeex seeni droit ngir xam ne daal dinañu fay def ay weer li ko waral boobaak léegi mu di dañu leen a sëggu ngir nag fatt seen i nopp ci seen àq ak yelleef euh, ba ñuy jooy ngir ñu delloo leen ba tey kenn waxu ci walla kenn yeeyu ci yàbb yi ndax dal dinañuy fësal yooyu ne information lu ëpp juróomi junni nit yoo xam ne ñu ngi dal di loger foofu te itam condition yi ñuy dund métti na li waral ñu dal di amal grève de la fin ngir ñi nga xam ne ñoo leen war a dégg di kilifaay réew mi dal di leen di dégg ca condition yi ñuy dund mën caa jóg ba dellu ci seen i kër wax ci coowal Diary Sow ancien ministre bi di Abdou Mbaye daal dinay àddu euh, wax ci lu ni mel ginnaaw bu ñu doon wax boobu ba léegi euh, te gisuñu benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguurug Sénégal daal di ci wax moom Abdoul Mbaye daal nay àddu wax ci diggante Diary saw réer gi ak yenn commentaire yi nga xam ne ñoo ngi ko ciy dégg mu mel ni day firndeel ne jaari saw dafa dem ci coobarey boppam bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Abdoul Mbaye nee na charge yi nga xam ne moom la ñu ko teg dafa métti mu di Sénégal ñu bari bootu ci ginnaawam doon am yaakaar ci moom li waral tey ji mën naa dem ba tax mu bëgg a buudee ngir abandonné li nga xam ne moom moo di ay études am son excellence monsieur le président de la république Macky Sall daal dinay dalal démb doomu mu di ab humoriste buy wuyoo ci ci film bi nga xam ne joué na ko te muy wër àdduna di daw ca Netflix jamono ji mu di Lupin ba waral njiitum réew mi daal di koy dalal démb ca palais de la république moom Macky Sall moo fësal yooyu les baax ci compte yu Twitter ngir wax euh, kontaan bu baax ci doomu Sénégal bi di Omar Sy itam di ko félicité ci tànk yi nga xam ne moom la jël ngir siggil réewam di Sénégal. ñu àddu wax ci diggante Fou Malade ak Bougane Gueye Dany wax ji nga xam ne Fou Malade waxal waxoon na ko fii ci bés yi ñu génn di euh, dànkaafu ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany ginnaaw bu mu recruter euh, policier bi ñu rajee di Pape Bouba Diallo moom Fou Malade ne Bougane Gueye mënul fay ay employé ba ci dolli leneen mu mel ni waa Sen TV employé Bougane Gueye yi dal dinañuy fippu ngir wane seenu naqar waaye itam am ay leeral yoo xam ne jot nañ ko andi ci seen salaire yi ñu leen di fay bokk na ci Cheikh Sarr ki nga xam xam ne moom moo di Alima Ndione bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu Cheikh Sarr dal dinay dal ci kaw kii nga xam ne moo di Fou Malade nee na ñoom ñi ngi ci condition yu baax ñi ngi leen di fay salaire yu baax te itam bi ñu leen yokkalee seeni salaire yàggul moom Fou Malade moom miy wax amul sax may ga ba waral muy artu wala muy yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci ki nga xam ne moom moo di njiitul gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Alima Ndione nee na Bougane Gueye du c'est la première fois muy gis nit bu mu koy xëcc di ko yóbbu ca des médias wala fi nga xam moo di FM wala Sen TV ndax Bougane lu baax lay def te moom la yàgg di def. ñu àddu wax ji Balla Gaye 2 mi nga xam ne àndoon na ak Aziz Ndiaye dem ca mu Mukarram daal dina ñuy fësal yeneen i vidéo ak ay photo yu wane ne Balla Gaye ginnaaw ziaram ba mu doon amal ca Makka daal dinañu ko fay honoré takkal ko li nga xam ne moom moo di ay raaya ba waral doomu Sénégal boobu di Balla Gaye 2 daal dinay fësal mbégte ma nga xam ne am na ko ginnaaw bu ñu koy takkal yooyu le raaya ca mu Mukarram ñu wax ci diggante Omaro ak Ayo Baldé ginnaaw yooyu les informations tàmbali naa circuler ci réseaux sociaux yi ci diggante ki nga xam ne moom moo di Ayo Baldé gorom ak famille jëkkëram li waral loolu le ba ki nga xam ne moom moo di Ayo Baldé bëggatul ci sëy bi dara lu toll ni tarfatal ay ni bëggatu ko ci ndax nee na sëy jàmm moo ca gën bu fekkee dem nga ba amatul sa jàmm yoon la nga daal di quitté daal di fësal yenn ojo yoo xam ne tàmbali naa tasaaroo ci réseaux sociaux yi da xas ki nga xam ne moo di gorom ak famille bu Omaro nee na Omaro mënu ko yor yooyu le kàddu la ko yaay Omaro xamal ba waral coow li juddu seen diggante ci situation bi mu nekk metti na booy waral muy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi ngir ñu wax ci Omaro mu dal di koy may lii di baatam ñu dem ci États-Unis ginnaaw wàcc ak Donald ak ko war a wutu di Joe Biden mu mel ni moom Donald Trump moomu ni ki tey lay dal di quitté Washington DC ak Maison Blanche ba ngir nag dal di dem koy wutu dal di ñëw installé wu dal di nañu cay gis ay image yoo xam ne moom Donald Trump moomu dal dinay jël la nga xam ni moom moo di roppalaan nga ngir jóge Euh, ca Washington ni ki tey ngir jox place bi ki nga xam ne moom moo di Donald Trump mu tàmbali ab liggéeyam ni ki tey ca États-Unis ñu jeexale ak point Covid bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l' sociale amal tey ci àllarba ji yem ñaar fukki fan ci weeru janvier ki test yu ñu jot a def ñaar téeméer ak juróom fukki nit ñoo dellu si am doomu jàngoro bi fukki nit ñàkkaat nañ seen bakkan dolleeku ca lim ba ñàkkoon seen bakkan ñeent fukki nit ak juróom benn ngi réanimation téeméeri nit ak ba bi seen i kër tax ñiy sàmmonteeg wér gu yaramu doomu aadama yi lëkkoo ceeg ministère de la santé de l'action sociale di sàkku ci askan wi ñu gën a wëyal digle yi bàyyi tere yi mën a xeex mbas mi mu génn ci réew mi bokk na ci takk masque la gel respecté dandante bi te bàyyi dajaloo bi mbokk yi xarit ñu doon taxerlu ci suñu gaal 24 fii la ñuy yëkkatee bi la jotaayu xibaar di ñaan ngeen woy suñu programme ñaanal leen fanaanum jàmm di leen jox dig daje ëllëg incha ku ne xam ne ne yàlla daa bind am na ñu matal am ñu matlewul waaye